Ah, kon mbokk yi gis ngeen nag ñëw nañ Touba ba tey si màggal gi fekk fi koo xam ne nag ku ne xam na ne waa Cene bala di guy gi mais fekk ko fii kër maire Woré Sarr di yaayam 18 safar nag Serigne Touba ko woote ngir ñu sant ko ci yàlla boromam guy gi ñu ngi lay bëggee di lay ziar ci màggal gi ak sa njaxas bu rafet macha allah. waaw Babacar d'abord maa lay fay di wax auzu billahi mina seytaan gannaaw ba sant yàlla julli ci yonent sama ñaari waajur maa ngi nuyu suma sëriñ sëñ yaa sekk borom digal di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg te wér tey euh, ko quoi parce que foo dem dinañ la ñaanal dinañ la accueillir dinañ la berneel dinañ la saafante ak lépp laa sant la ci bis bi li Serigne Touba waxoon daal bu ñëwee ñu sant bis bu ñëwatee ba toll ñu sant la ko boromam loolu moom wax dëgg yàlla moom ñaan ko nangu na te ñu ngi ñaan yàlla yàlla def ci xéewal képp koo xam ne màggal si nga rek li nga màggal si muy loo fi ñaan. muy tawat boo fi indi yàlla saafara ko muy jafe-jafe boo fi indi ci nekk ci xol yi lu mënut a wax doomu aadama gën a xam boppam yàlla safar saafara ko képp koo xam indi nga fi tawat boo xam daal mi ngi sa xol lu mu nit mënut a wax yàlla xam na ko yàlla na ko yàlla léegi bu ñu jógee ci ma wax ji rafet na macha allah suñ jógee ci màggal ku ne xam ne tamit dañuy dëgmal gàmm muy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu tamit ban appel la ci guy gi di lancer waaw maa ngi gis sax dégg na ñu ni soppay al amin yi. comme yuñ. gal si wala jullit yi sax di leen jox ay xéewal loolu jar naa wax. nañu jullit ñi rek ndax murit moom muy jullit murit mooy ku jëm ci yoonu yàlla kon defe naa nañ ñu doon jëm ci yoonu yàlla bi dajeeg moom ñu dëppee seen bopp taalibi sëñ Bamba Cheikh amaat Bamba tey soppay al amin yi dajeeg ñoom tey di leen defal teraanga image boobu dara gënu ko rafet image boobu dara gënu ko rafet ci. artifu yoonu Sénégal muy murit muy tijaan muy laaj ñëpp war nañ cee jàngee kon tamit ñun comme noonu rek ñun moom man sax laa wax du ma nekk di joxe appel wala may lancer leneen loo xam ni vraiment tax ñëpp xam ne xamee nañ ma Thiénaba ñëpp xam nañ taalibe Cheikh Ahmed Tidiane la kon bis la boo xam ni bu ñëwee dañ ci def luñ mën ak luñ mënul ngir bisu yonante bi du ngistal du puukarewu mais daal li xam ne moom présent daal moom mooy xam bis bii nga xam ne mooy màggal Serigne Touba gi ñëw nañ ci jàmm di ñaan yàlla ñëpp ñibbi ci jàmm suñu yaay Waré Sarr nag wax dëgg yàlla ñun suñu xol seet na ci moom parce que gis nañ teraanga yi gis nañ yëg gi gis nañ dalal bi gis nañ bëgg gi gis nañ tamit ak li nga xam ne di ko def suuf te ni du ko yëg di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu xam ne vraiment tey ñëw nañ ci màggal gi jàpp ci bu baax a baax a baax a baax jàpp gi bu baax mooy nga ñëw tubaa lekk rek ndax dañ lay force na la lekkal ngir yàlla kon defe na ñu ngi sant yëpp dañoo lekk <laughs> daal te jox nit mu defe naa tamit am na lu ci yàlla dikk ab jaam de. waaw loolu defe naa li jëm ci yoonu yàlla wala ajana yooyu ci gën a gaaw. tuyaaba tey nit waaw tuyaaba lu nit loo tuyaaba mënul gën a rëy loolu. mënul gën a rëy loolu joxe tuyaaba mënul gën a rëy loolu. parce que man xam naa ci dara ndongo daara laa mais am na loo xam ne tamit euh, sunu borom bu ko defee ci yow rek comme sunu yaay war saar bu ko defee ci yow rek duñ ñi guléet man parce que man ni ma jàppee safar mooy safar mooy koo xam day bari na nit ñi jox leen ñu lekk jox leen ñu naan te yàlla tax. te moom chaque jour kon mi ngi safar kon defe naa safar la ko fekk ci yoon wi boole ko nag safar boo xam sëñ Bamba ne woon bu ñëwatee ngeen safar la ma ko sant la ma ko kon defe sant nañ bu baax bi yàlla boole ko mel ni Wara saar ba ànd ak moom tey Touba ba tey bëgg Touba te yàlla tax moom jaar la ko ci moom kon defe naa loolu sant yàlla la grâce à moom ko léegi su ma su ma ñëwee tamit ci côté kii bi nu ñu waxeeti parce que tamit accident am na ci tali bi ay nit faatu ci loolu ban loo ñooñu nga xam ne dégg naa am nañu ci jot a faatu ak ay blessure tamit guy lu mu leen di wax. waaw di ñaan yàlla daal ñooñu yàlla yóbbu yóbbule ajjama ajjana ñu rëccoo lu ñu doon ñëwee ci ajjana àddina parce que yàlla mën na ko yàlla yàlla def mais nag moom sant yàlla parce que tamit euh, ci yoonu sëñ Bamba. nga dem di ko siyaare ji màggale ci yàlla jël sa bakkan loolu xel mu dal la yàlla yàlla yóbbu àjjana ñi si des ci xam te vraiment ñi daa ci retour bi yoon wala ñibbi yàlla na ko yàlla ful ba nga xam ni dina ñibbi ci jàmm ak salaam àgg seen njaboot ci jàmm ak salaam. Mhm, mhm. léegi nag dañuy fa ñuy jeexal mooy si làmb ji guy gi def nga daaw année balance ren saison bi mu ngi waaj a ubbi wala sax ubbi na guy gi actuellement fu mu toll ak promoteurs yi. waaw promoteurs yi ñu wax. ñi woote ñuy wax ñi ñuy lëwantoo daal mais nag euh, kenn waxu ko ci kàddu yu dëgër pour ñu man a conquérir waaw mais ñi ngi wootee ñi ngi wax daal mais ñi woote ñuy wax mais gëm naan daal incha allah yàggatul dara bu yàlla defee jàmm ak salaam rek dina am lu feeñ quoi bu soobee yàlla li njëkk feeñ moom bu feeñee dinañ la woo comme que yow moom mënuñoo wax dara te woowu ñu la wala mënuñoo wax dara te yëgoo ko kon dinañ la woo wax na lii ak lii ak lii ak moo am incha allah waaw. maanaam bu ñu ñëw comme nee nga ngi ñëw ban adversaire wala yenn adversaire la ñu gën di indi sa maanaam ci yow. waaw xam nga làmb de loo xam ni bis boo lancee lancer de lancer jàmbur rek. di nga yàq lim doon def te làmb de loo xam ne nii doo jekki-jekki wax loo xam ne sotteegul mun na yàq lu bari la man ngay bàyyi ba mu taxaw ba taxaw ba taxaw ba ñaari mbër yëpp jot avance nga doog a conquérir wax li nga xam ne moom nga war a wax sinon xam rek cat da ciy dugg parce que suñu làmb ji dafa nekk milieu boo xam ni milieu bu war a jaar yoon neex la mais dafa bëri ci suuf yoo xam ni ñu bëggul làmb antu wala ñu bëggul làmb dem léegi yu mel noonu mën nañ cee jaare yàq li nga xam ne moom waroon mu wér mais bu xasee soti yàlla def ma taxaw kenn mënatu ci dara. léegi adversaire yi parce que ñun tam ci li ñuy lux ngóor a jeex sa combat ak Reug dégg dégg naa ay ay ñu ciy wax ak yu mel ni ki dañ la ko yëndil comme adversaire di la ko wax. non non kenn mësuma ko wax. non non mais la ko ëndiloon. non non bëri maa guddi dinaa bëri ak moom mais du guddi yi quoi pare gu ma guddi du guddi yi quoi. waaw dégg naa tamit fan yële passé dañ leen invité woon benn émission TFM suma ma juumulee émission ba euh, euh, maanaam dañ ci dégg ñu ne dafa mujj am ay jafe-jafe xam nga daa mujjul yegg wala ñu invité woon ñëwut loolu ñu ci mën a leeral côté boobu. waaw loolu moom xam naa ko ci mel ni suma papa Bekkay au passage di ko nuyu moo la ci mën a leeral quoi mais ma respecté naa suma invitation man ak Boy Niang def nañ ko quoi. mais su ma juumul daal moom moo la mën a expliquer parce que moom émission am la woon man su ma joxee rek damay juum wala ma tooñ mais ñu ñi mu daal mag boo ñaa ñëw nañ li ñu doy woon def nañ ko sénégal yi kontaan nañ suñu fans kontaan nañ li des nag live goes on quoi après moog ay gaayam quoi. Hmm, loolu leer na mais damay ñëw tamit ci loo xam ne barki dem jàng nañ ko ci journal sunu làmb ñu ne Tapha Tine dañu seeti at ay estafam pour mu bëriwaat guy gi mu bañ. waa kër promoteur dafa la seet pour Tapha Tine rawatina ki tëggoon ki doon ndox digganteem ak Ama Baldé muy Pape Abdou Fall. moom ah si am moom loolu mais bala ma ko am bala kii daal Tapha Tine génne bëriwut ak guy gi koy may góob am daal parce que waaw parce que nit ku ne koy seedal ji koom Tapha noonu quoi nag mën nañu wax staff du du mbër mi staff du mbër mën nañu wax man maa ngi nii suma staff. Euh, dama génne jëluma rek rek nas génn buñ buñ ko seet see promoteur xamal na da koy jël waa kon loolu la kon defe naa ni xam nga saf bokkut ak kii quoi maanaam kii kii mën na wax lii bëgg li bëgg li mais tamit day fekk si saf ci li mu bëgg parce que saf mooy encadrement. dafa hmm. sax man dégg naa ko ci ay kàddu mu ne loolu waxu ko moom du rejeté benn mbër mais buñ la seet si woon yow di nga jël avance am actuellement nii. Ah, dañ maa daan dama war a fayu mais loolu du waxam loolu du waxam du waxam. kon moog booy Niang fi mu nekk nii ñoom ñaar daal laa jàpp ne ku la seet si nga bëri ak ñoom. waaw ak ñeneen ak mais pour adversaire yi xam dañ laa daan ñi ñi nga laaj rek laalo la dañ daan dama war a fayu mais yàlla baax na. kii <laughs> yaa ngi ko doon laaj ba tey yaa nga ci. non giri moom dama giri dafa ñemewul ñemewuma. giri lanu la. ñemewuma parce que xam naa ni fi may jógee nii comme sama retour bi war a defaat nii comme loolu tubaab bi naan il faut reculer pour derrière sori xam naa moo ko jaaxal. xam naa loolu ñu naan il faut recruter pour des meilleurs soldats man man il man su ma ñëwaatee dama naan il faut recruter pour des meilleurs soldats mais du ma ko wax dama naan il faut recruter pour des meilleurs meilleurs naaw. naaw naaw meer naaw doo doo sote de il faut recruter pour des meer naaw. boo naawee fooy dali nag. moom laa la xam nga sote moom danga naan da ngay tëb. mi fuy naaw xam nga naaw moom longue distance bee gën a gudd. naaw tiim giri. ma man du maak moom parce que moom léegi mu jeexal bu bañee bëreeg man man bu bañee bëreeg man force ma pour bëreeg moom. damay bëreeg sumay morom bëreeg am naa beaucoup d'adversaires mais mu gën a yomb ci moom rek pour dimbali ko bëreeg moom mayaat ko bës tuuti bu fekkee simp bi a bu naa ko bañ a hmm. mais bu dee dafa ñëw comme noonu ma doon def signature yi yëngal nangam nangam wallaay azim dama koy simpi. mën naa xeex de. man mus ngaa gis mbër mu mën a xeex dóor ma. ah gars nañ dóor kët la de. mais est ce que gis mbër mu mën a xeex dóor moog Tafaatine ko daa xeex. Ah, Tafaatine de loxo yi xor na. Tafaatine maa ko yóbbu Ardo ah. mais lu loolu nga yaakaar. waaw moytu man damay moytu dóor ba pare man loolu laa njëkk a jàng États-Unis moytu dóor ba pare doog a jàng leneen waaw. kon Gris mënu laa yóbbu Ardo. ba di la dóor. koo ñëwal noo ko yóbbu Ardo combat bu taxawee nga làkk leneen def leneen ay génnew Gris ñëwoo de. waaw daal li ma la wax rek Gris Bordeaux Eumeu Sène Modou Lo maa ngi foofu. ku ma ci yàlla jox daal baax na su ma demee nag ba bëgg mënu ci bëre kenn force ma ful bëre cee kenn man y' a beaucoup d' adversaire su ma demee ma ci bëre kenn am naa su ma moom. Igris yoonu bëre moom. non non. Papa ah, ma moom ba tey na ci loobi champion la bi mu dugg ci kalaaf dugg ma ci kalaaf bi muy téye million te ma million bi mu encaissé ay ay gala vingt million trente samay par musuma wax du ma bëre ak moom mais dama am plan B Z D E yooyu voilà comme laa waxe mais nag euh, daana la ko du ma ko résister mukk ci sumay kàddu parce que ku ma la te ndaanaan la te kombaam day metti te ku ñime la Papa Sow ku ñime la Papa Sow kombaam de safara. waaw yaa Garga. non non bëriwuma ak moom. léegi looy tàggoo sa supporter ak sa yi ci Leewtoo TV ginnaaw bi ñu la fekkee nag ngay safar di màggal comme tout le monde. waaw kontaan ci rek parce que tamit euh, woo ma téléphone. guy gi dama la bëgg jël. xam naa ne sonal naa la moom. gis nga booba tey nelu maay bébër rek guy gis euh, yàgg maa ngi ko naan bi ma la koy bi ma lay tegtal sax maa ngi gëdd di énervé mais loolu lépp sant yàlla parce que tamit mënu ma la résister. moo tax euh, kontaan naa parce que tamit bu fekkoon tegoo ma fenn doo ma woo ne ma rek may jël bu fekkoon tamit nekkum acti ak actualité. ak loolu moom du ma gaaw a juumaat ci àdduna kay. yow tamit fi def dégg naa fan yéen Lutte TV doy na wa. moo tax du ma gaaw a juumaat ci yoon loolu la sant yàlla la di nuyu xam nga sa gars yi nga àndal. waaw kontaan na non Lamine koy bàyyi naa ko Elton <laughs> Lamine bàyyi naa la Elton dégg di sant nag di kontaan parce que vraiment Lutte TV ak Leewtoo su may site lañ muy yow muy lamin yow suma mbokk nga lamin suma rakk la. kon defe naa tey bu nga ma jël see tey ñu yendu waaye ñëw jël suma yaay loolu sant yàlla sama fierté pour moi pour ma recevoir leen dégloo yéen wax ak yéen loolu sama ferte la waaw di sant ñëpp gërëm ñëpp di gërëm Cheikh Mbacke Ndiaye Aliou di gërëm grand Mangane Dubaay vraiment ku baax la suma xarit la suma papa ak suma yaay di gërëm sama soxna béy bu baax baax baax baax béy waaw di gërëm bu baax di ko sant. mais yàgg sa dawal yi moo ko tiital te yàgg dana doon dugg sa woto. non dawaluma sax wallaahi dawaluma dawaluma sax. <laughs> waaw <laughs> di kontaan ci ñëpp nag di nuyu sama mafia bi yëpp nag waaw ñëpp kontaan naa